Abdoulaye Ndiaye ci ngeen jëf Cheikh Agibou Soumaré mi réeroon xëy na feeñ ci yéene kay yu bari ñu xëyandal ubbi l'observateur premier ministre du Sénégal ba woon di Cheikh Agibou Soumaré ab bataaxal la bind am laaj bu doy waar bu mu ca laaj président Macky Sall laaj ba moo di ndax dangaa yëkkati xaalis bu toll ci 12 millions d'euros maanaam 7 milliards 900 ci suñuy koppar jox ko Marine Le Pen bu France l'observateur nañu keroog bi fi président Macky Sall dalalee Marine Le Pen coow lu bari la ci amoon coow loolee nar naa gën a yokk ginnaaw leetar bi Cheikh Agibou Soumaré bind ak laaj bi mu ci sampal président Macky Sall bés bi le jour nañu Agibou Soumaré mi ngi jiiñal Macky Sall li mu ko laaj moo di ndax dangaa may Marine Le Pen juróom-ñaari milliards yu teg juróom-ñeenti téeméeri millions li jaral lijjanti nag yéenekaay bi nee nañu moo di fan la Cheikh Agibou Soumaré jógi ba tax muy laaj lu nu mel Biram Fay bu APR ni ci yéenekaay bi Cheikh Agibou Soumaré ay wax la bëgg gis na ne dafa faatu ci politique ñëpp fàtte nañu ko kenn waxatul ay waxam muy seet nu mu mën a dekkiwaatee moo tax muy wax li muy wax Biram Fay ne ñu fi nekk ci lijjanti beneen sulleekuwaat ne fan yi dégg nañu kii di Bougane Gueye muy jéebaane milliards yu ñu sàkkal pexe mu di koppar yu waroon a dem ca Trésor ca gisee su ko fa keroog ñu dégg Cheikh Agibou Soumaré ci ab lettre bu mu bind mu cay laaj Macky ndax dafa may Marine Le milliards millions ki mu koy laaj di président Macky Sall ngi xëy di nangu ay ñaan ci xët mu njëkk Soleil national journal bi nañu keroog la woon ca Medina i kàddu yu xalifa bu Medina Gounass muy ñaanal président Macky kàttanal ko ngir mu matal li mu yéene ci réewum Sénégal lise ko a baax gërëm koo xamal koy ne li nga def ci réew mi ci fukki at yi ñi la fi jiitu ko fi te loolee du lu ñuy lam-laame ci mu def ci Médina Gounass moom président Macky Sall la tribune nee nañu na ay village yu fa yoo xam ne ak ci lëndëm lañ doon ba yegg na fa le mandat nañu agence sénégalaise électrification rurale di moo fa jaar njiital ASER di Baba Diallo di xamle ci journal bi nañu dugal nañu courant ci juróom benn fukki village yu nekk ca Kolda am yeneen ñeen fukki village yu courant ba war a dem yéene ji mu ne ne mooy fexe ba lu ma téeméeri village yu nekk ci région bu Kolda am courant wàllu dem béeg dikk bi di transport public bi ci réew mi journal L'As mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne ginnaaw teer bi ginnaaw BRT bi nguurug Sénégal lancé na lii di RTC mu di projet boobu waa CETUD ñoo ko war a doxal fii ak 2035 ñaari téeméeri milliards ak fanweer ak benn yéenekaay bi nee nañu moom la ñu ci war a def ki def ci boppam ne mooy doon cinquième président de la République bu Sénégal di El Hadji Malick Gakou borom grand moom la le mandat xëyee ci xëtamu njëkk source waa xëy ñu xibaar moom it meneen mbër mu ngemb ba samp ndëdam candidature am ci élection présidentielle yu 2024 yi journal bi lañu Aliou Lô la borom mouvement Sénégal conscient tere bokk Ousmane Sonko ci wote présidentielle yi 2024 yi mooy yóotu fitna ci réew mi te loolee jara daw la du samay kàddu kàddu yi Seydina Omar Sy la mi ci xët mu njëkk journal L'Info yéen a kaay bi nañu moom Seydina Omar Sy newoon fii jamono ministre affaires étrangères ci nguurug Abdou Diouf moo newoon ni démb ganuk émission bii di Grand Jury ci rajo Futurs Médias fa la xam lee ne xamul Ousmane Sonko musu koo gis waaye nit la koo xam ne askan wi dañu koy déglu discours am dafay porté ku mu neex looloo am ku mu naqarit looloo am Seydina Omar Sy ne li ma gis jamono ji mooy takk dere ñooy dal ci kaw Ousmane Sonko ak ñoñam te loolee du lu baax Seydina Omar Sy dolli ci ne limitation de mandat bi ñu wax ci réew mi mu àndu ci ne bu fekkee gi jiite réew mi mi ngi doxal li ko waral teg lépp ci yoon gisul lu war a mën a tax ñuy limité mandaam ñu dem ci lambu ji ak sunu lambu mi xëy ci combat bi fi woon démb ci diggante rëg-rëg ak saa kees yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne rëg-rëg moo ndam li waaye combat bi bari na coow bari na werante benn combat ñaari jël la ñu gis abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot ak ci bitim réew